ak naqar boo xam ne askanu Minam Sarr moom la ñu yeewoo tey ak ñi nga xam ne ñooñu ñu wër rek tund bi yëpp di jéye yu fi am ci boo xam ne benn ato mooy camion yi tibu suuf ñoo fi renversé benn xale bu jigéen bu toll ci environ 6 ans mu nekk loo xam ne nag wax dëgg xëy na am na mais bettutoon ñu bari daal ndax Minam Sarr fi mu nekk ak ni tali bi positionné woo yaakaar naa te amul benn ralentisseur boo xam ne si nii mooy permettre ate yi ñu mën a ànd ak daal di daw di ànd ak prudence amu fii daal mu nekk loo xam ne nag askan wépp ñu ngi koy naqarlu Minam Sarr ak leen wër lépp ndax c'est pas la première fois mu am fi mu nekk loo xam ne daal waa Minam Sarr yëpp naqarluñ ak ñi leen wër loo xam ne nag fi mu doon nii nag moom wax dëgg mer nañ torop mer nañ ba futu li ñu bëgg nag mooy maanaam euh, ñoo ngi lancé appel solennel niveau maanaam administration bi monsieur le maire yaa ñuy dégg bu yow yaa fi teewal administration bi yaa mën a jàllale li nga xam ne mooy suñu kàddu ñu ngi la koy jooytu bu baax a baax a baax ndax wax dëgg yàlla buñ ko dalee jooytu yàgg na may mosuñu cee gis benn solution ba léegi nii ba léegi wax ak yéen nii mosuñu cee am benn saafara mu nekk loo xam ne si ni métti na ñëpp nag mag ak ndaw góor ak jigéen ñëpp ku yeewoo Minam Sarr ak li leen wër tey wax dëgg yàlla am nañ naqar ak tiis torop torop torop waaw lu waaye sant yi bi ñu génnee li ñu def mooy bi ñu génnee gis ne xale bi dafa dee dañoo baale tali bi nee yi duñ jàll waaw loolu moom moom lañ def te biñ ko baalee tamit ni ñu ko bëggee woon amee nañ ko ko benn at jaar fi bi nga xamee ne si nii maanaam force de l'ordre yi ñëw nañ nag mooy maanaam commandant ñi mandal bi ñu ñëwee ñoom ñoo doodoo bougé kii bi déplacé at yi ñu door a dem mais ñun loolu moo nekkoon suñu décision ne maintenant benn at du jàll. nekk na xale ba anamu xale bi instant bii nii moom wax dëgg yàlla faatu na ba yóbbu nañ ko sapeur pompier jël nañ ko ba yóbbu nañ ko waaw. tey euh, bu ñu demee xamante ne mbir yi euh, bii moom li nga xam ne si nii ñun mooy suñu besoin premier instant bi nii mooy doo daan ralentisseur yoo xam ne oto yi danañ fi mën di jaar di dem tànk ndax fii dafa nekk zone boo xam ne nii oto yi dañu fiy jaar dafa bari camions yi tibb suuf dañ fiy jaar yi tibb latérines yi dañ fiy jaar. ak yeneen ato transport yi ba ci atu këriñ yi te yooyu yëpp ku fi jaar nu la neex ngay dawee parce que amul dara loo xam ne lanti sévère te fii ay jaakat yi ndékki ñoo fi nekk yoo xam ne suba gi nit ñi dañu fi dem ci jëndi ndékki même ñiy jënd jënd fi la ñuy ñëw dañuy jéggi kon yaakaar naa c'est fort nécessité la pour maanaam ñun ñu am fii ay ralentisseurs yoo xam at yi bu ñu fi mën ñëw minimum 3 ci entrée bi benn ci digg bi benn boo demee ba ci sortie bi tamit ñu amaat fa benn mu nekk loo xam ne si nii askan yëpp nañ waaw instant bi moom li ñu fas yéene mooy su fekkente ne defaru nañ ko te yàgg nañu koo jooytu ah ñun ñu jël jël décision pour defee ko suñu bopp rek instant bi moom loolu la ñuy jël décision te pare nañ ci nag waaw instant bi moom wax dëgg yàlla danañ jël li nga xam ne si ni mooy suñuy décision bu danañ déglu nag si administration monsieur le maire danañ wax ak moom mu jàllaleel ñu message bi ñu déglu ñu war a déglu su fekkente ne déglu nañ leen nag wax dëgg dandiwun benn saafara boo xam ne bu ñu doy la jël seen décision boobu waaw man Modou Niang laa tudd. waaw ah, fii ak euh, Mbacke wala Touba ñaata kilomètres. fii ak Touba la. waaw waaw. ñu leen di siyaare Serigne Diasaka Sarr. waaw ah, chef de village Darou Salaam ngay Minam Sarr. Minam Sarr Darou Salaam ngay moo nekk si kay bi Minam moo nekk si itam eh, Darou Salaam ngay moo nekk si kay bi waaw. waaw li ñu naqari yàgg nañoo naqari. muy jéyee ju doy waar ju fi am yoo xam ne nii yàgg na fee am ñu di ko jooytu ci ba léegi gisuñu ci benn saafara ndax fii ñi fi dee bari na am na lu ci bàyyi mu wax mais ëpp na loolu hmm, sàndarma yi fi ñëw cos li ñu fi constaté bari na li fi euh, dee ci ay diggante bi ëpp na six personnes ci ci ci lu mel ni ragal dee li fi dee mbaam yi nag kii yi nag moom. bi bu set mbaam de wala fas wala xar wala béy waaw ñoom moom moom léegi daanaka daal mënatuñu am dara ndax ndax ndax ndax kii bi xale yi nag wax dëgg yàlla joote nañ ba sonn li ñu mujjee mooy li ñu jël seen li ñu jël suñu histoire daal mooy su fekkente ne lii ñuy joot amuñu ko dañ ko defaral suñu bopp lu ñu ci fekk rek fekkuñu si ndax ñii seen intérêt rek la ñuy dox duñu jeexal duñ duñ bàyyi ñuy jeexal suñu askan duñ bàyyi ñuy jeexal suñu alal wax dëgg yàlla dama jël sunu alal wala ko waaye même sarar yi jaar ci kaw teel wala ak yenn ak jur yi jéeg ak yooyu di fi loru kenn xamu nu mu toll bërki démb am na si ki ñaari oto yoo xam ne ñu ngi dàqante kenn ki ma wax carrément ne moom dana daan dana daane morom ji kenn ki nee na moom moom nee na woon dana daane morom ji yàlla xam ne bi bi nga xam ne ne euh, déglu na ki ñuy ñu dàqante ba toll fii euh, benn mbaam nekk foofu daf ko ceeru xotti biir bàq gi ak buti di war tàngoor jàpp ko muy dox di watul nii buti yeeg yëpp di watul ci kaw tali bi lu ñaw ci ay ay xal doon koy def kon nag li ci liñ liñ ci bëgg daal mooy ñu dimbale si ñu am ñu am ay doodaan nit ñi mën a am jàmm euh, ñëpp am jàmm loolu daal lañ lay lay ñaan bu ñu ko defoon nag man teeg teetuma kenn bareetuma kenn xale xale dañ ko defar seen bopp waaw. voilà moom ci suba gi la am xale bi da dafa jënd fii mburu bay jéggi wax nañ ne fii ci traitement bi la ko la ko la ko at bi jëlee parce que dafa am benn oto bu mu jàkkaar lool di ko moytu jël xale bi loolu daw euh, alerte bu métti rek moo ko moo ko teg loolu loolu nag lu mën a ñàkk la ndax boo jubee dëkk bu fekkoon wàjji woon na bu gisee oto buy ñëw wala kii dana mën a dana mën a euh, moytu ba mën a dem waaw waaw waaw loolu moom ñun daal bëgg nañ ko jaaxle nañ son nañ daanaka nit ñi jeexal nañ jeexal nañ yortuñ dara copine kanaara ba ca xat yi dara du fi des lépp la ñuy frappé voilà ca koo wax mu saagal mbaa mu sànni lay loxo lool loolu loolu daal moom moom moom métti nañu loolu moom bëgg nañ état dimbali ñu si wax dëgg yàlla ñu ngi sant nag monsieur le maire mi mi euh, ndax wax dëgg yàlla moom tamit ay yàgg nañu ko am ànd jooytu ko ba tàyyi waaye nag moom da doole ay jéegoom jotti lu ñu ko ci kaw bañ mën ko am ndax sama yàlla tey li ñu yeewoo naqar rek li fi yàgg am nag c'est pas la fois ay nit ñu bari faatu nañ ci yoon bi ay jur ñàkkal nañ ci yoon bi alal aussi yàqu na ci yoon bi il foo ñu war ne ne yoon bi mu ngi diggante njurul diggante Touba ak Xelkom muy yoon boo xam ne dañ fiy jaar lu bari te li ëpp ñu fiy jaar ay camion la te camion yi dañuy sarse ba fees soit dañuy sarse xeer wala ñu sarse suuf jëm Touba te ñu koy dawal aussi avec tout le respect du droit ay xale lañu fii nag li ñuy def tey yàgg yàgg na fi am fii nit faatu na fi ba tàyyi jur yaa ko daan faatu na fi ba tàyyi mënul continuer nag parce que mënoo dem ci Sénégal yenn parti am dóoraan fii amul dóoraan te ñëpp nekk ay sénégalais ñu aar ñeen ñi bañu aar ñeneen ñi li def dóoraan feneen war na ko mën def fii soit l'état la ñëw def dóoraan mënu ko population defal seen bopp population nag ni ñu war a soit état jël ay responsabilité def ko soit population yi def ko avec bien sûr la mairie ñu def ay dóoraan yoo ne ni au moins dañu obligé oto yi ñu ralentir parce que lii bu ñu ko deful également dina continuer di am dina continuer di am am na tey mais je sais que dans un mois dans deux mois dans six mois dañu am dañu fi taxawaat et war naa mën a war a arrêté dóoraan trois dóoraan ça ne coûte pas cher deux dóoraan ça ne coûte pas cher na ko état def parce que dóoraan moo gën a nit moo gën a fort moo gën a cher dóoraan te lu man li yomb état donc su ko état defee moo ñu gënal su ko deful aussi population dañu koy def